moon teg loolu c'est un challenge c'est un défi maami ay ca ñu ñëw sunu wàllu ndey joor a à droite tanoor bu jurbel sunu wàllu càmmoñ tanoor bu jurbel à gauche moo yor ngembul weex li ne lam ne kër masaar almaami kër masaar ñi ngi lewtoo Tanor jiital tànku càmmoñ Armady jiital tànku ndeyjoor ñu garder seen distance placement bu sew boo gisee Tanor awgal mami reculer ku topp ko gis nañ la Tanor ak Almami xoolal nga ko tànte xale yi ay naataangoo la ñu wax. waaw waaw Max. Uh-huh. Ah, programme bi nga tànn am na solo. waaw bés bu rëy lu rëy ci dugg alhamdulilah. waaw xale yi dañoo tolloo doole. Uh-huh. nekk ay naataangoo. ñu ngi leen ko. bés bañ dalagul. coono amagul. Tanor ak Almaami. ndeysaan. Tanor ak ndeysaan honoré Baye Mamou ndeysaan ñaari xale yi di lewte ndeysaan Alaaji Malick honoré Kalmani ndeysaan këpp na ko këpp na ko ndeysaan waaw ba léegi ah door na Tanor moo door moo door wala dafa waaye dalul waaye dalul dalul dafa cokkaas sànni na waaye dalul Tanor bu Diourbel. ndeysaan. xam nga nag boo nee Diourbel. waaw damaa daw na ñu daje daw na jël ko. waaw bañ na. Almaami jël na ko. jël na ko takk na ko comme ça takk na ko. takk ba waaye moom pour yokku na ko. Ah, waaw kay mu soog a jëli bi jógaat taxaw. waaw ko ñu séddoo. ñu séddoo jógaat taxaw. bu ko mboot ñu ànd rek. waay laay la laa. bu ko mboot ñu ànd rek waaye baax na. ndeysaan. Almaami loxo bi mu génnee. loxo bi mu génnee baax na da koo mane. da koo mane. acca Tanor takk na ko Tanor takk na ko léegi. attention. Tanor takk na. deme nañu wet. moo koy jéem a mboot. sukkur bi na ko daan na ko daan na ko ba mu daan na ko. Tanor daan na ko wàccal jaamur Tanor. Tanor wàccal jaamur daan na ko. wàccal jaamur. ba bàyyi la nga waxtaan ak mbir balaa ñuy ñëw ci. waaw waaw président Ascosen. Tanor daan na ko. bëgg nga dellu si waat sa combat ak Kolda. ñëw si Sambala balaa ñuy ñëwaat si combat laajte Sambala rapidement. ñu ngi lay nuyu bëgg nga dellu si waat si combat bi. waaw ñu ngi lay fay père. di bu sant bi la. di bu sant bi la. diggante Tanor bu Diourbel ak Almami. Tanor bu Diourbel daan ko jël bu rëy. jëli bu set ba toog ci kawam. waaw waaw def na ko affaire Fodé Doussouba xaaral photo olof dafa bari càkkaan. waaw dafa daan ba toog ci kawam.